bu njab yàggee nga war a feeñ document médical bu Ousmane Sonko bi ñu fi siiwaloon enquête ba ñu cey def l'observateur nee nañu am nañu ca daanoogum bil yéene bi waa dig di division investigation criminelle teg nañu loxo ñaari garde pénitentiaire kenn ki Idrissa Sow la tudd dip inspecteur de l'administration pénitentiaire mooy directeur des affaires juridiques de planification des statistiques de l'administration pénitentiaire ki ci des ngir mu mën a xajamal kaarangeeg réew mi ba ñu leen waxee dañoo weddi tuuma yi waaye l'observateur nee nañu bi enquêteurs yi xoolee seeni téléphone portable ci la ñu ne ñoom ñaar partagé nañu documents yi ci seen whatsapp kan la ko yónnee ak lu tax ñu yónnee ko yéenekaay bi nee nañu loolee lépp ca kanamu gis ba ca lay leer libération xëyee moom it xibaar bi ci xëtu mu ba bind ne dig teg na loxo ñaari agent yuy liggéey ci administration pénitentiaire Idrissa Sow ak Issa Ndione seen loxo génn ci ñu génn fa te wax ci li xewoon démb ca cour de justice bu CEDEAO yëral xët mu njëkk journal Le Témoin mi ngi ñuy xibaar ne démb juge yu CEDEAO yi daje nañu démb doon càmbar kalaame gi fi avocat yi Ousmane Sonko yóbbu woon mu jëmoon ci di sàkku ñu roofaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi ñu ko roppe woon teg ci partem bi ñu tas di Pastef ñu muulaat ko delloo ko boromam cour de justice bu Sénégal ba xolam sedd agent judiciaire de l'état bi maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat yi Ousmane Sonko yi ba ci juge Jérôme Traoré ku ci nekk ci ñoom say kàddu journal L'Info nañu ko ndil ci xëta njëkk ba teg ci bindit ne état bu Sénégal jël na coup démb Walf Quotidien nañu avocat yi défendre état bu Sénégal dañoo mel ne bëgguñu yëf teel a jeex moo tax ñu bëgg ko yàggal di taaweeka lawlawal agent judiciaire de l'état bi yéenekaay bi nee nañu wax na démb ñuy xaar bàyyi xel source waa nee nañu mooy bi cour suprême war a joxe ci la fa agence judiciaire de l'état yóbbuwoon jëmoon ci di dinga décision bu ji Sabassy Faye mi ne woon nañu delloowaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi élection présidentielle yi 2024 point actu mi ngi waxtaan ak Mamadou Diop Decroix njiital AGPADS nee na kiy wutu Macky Sall ci bopp réewum Sénégal dafa war doon ab président de la République buy dellu confiance ci askan tey ji ministère éducation nationale ne du ko dégg ndax syndicaliste yi bëgg a sooxeel njàng mi tey ci talaata ji li ñu wax teguñu ko fenn te bu ñu ko defee luñ ci góobe nañu yomb ne sayem sukki sems contre ministère éducation nationale guerre totale ndax ñaari wàll yi ku ci nekk ci ñoom yaa nga màtt fa nga màtt ngank mu dëgër ne doo bàyyi li fekk daggul ñu bàyyi njàng mu digg dóomu mi di enseignement moyen secondaire te wax ci enseignement supérieur bi